sama supporter di jéggalu monde entier di jéggalu ñëpp képp kuy bëggee làmb rek jégalu bu baax a baax a baax billaahi am na lu nga xamante ne moom yàllaa koy dogal rek nee na suñu tay waaw ah, parce que sox sox dafa ma dóor ma fayu xam nga ñu war ñoo convoqué taawul ñu ñu convoqué ko moom kese wax wax wax ba annulé ma te loolu du yoon xam nga te dama am ay àndandoo ñu jug dugg ci làmb ji wax peut-être yi par lamb ji jaare fa yàqu mais man luy dundal lamb rek laa bëgg ndax lamb laa am moom laa xam su ma sañoon dara lu yàq lamb lu jógee si man mais maa ngi jégalu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp juum naa juum naa maa ngi jégalu ñëpp di bëggee ñëpp nag di masaw ñëpp.